ñu ne waaw doo changer heure de diffusion yi. 11h mhm. minuit fekk xale yi tëdd. ndax fi muy moom li ci yàlla xam doy na moo lànk. Mhm. ñu jël li ñu yoon may. Latif bind une demande de marche maa ko yóbbu préfecture ñu autorisé ñu ko. Mhm. ñu def ngandam marche le 19 août 2000. mais boobu ba marche ba jeexee ba marche ba jeexee. ñu jël benn mémorandum jox ko benn le ministre de la communication de la culture de l'époque mémorandum mhm. jox ko le gendarme de l'audiovisuel de l'époque l'éminent magistrat Babacar Kébé ñooñu jox ñu dëgg arrêté série mhm. waaw loolu nit ñi dañ koy fàtte mhm. kon nag y a pas d'acharnement contre ñii nga tudd léegi. mais ñi nii est-ce que dafa la même chose est-ce que. alors ba ma koy léegi ñii ñi nga mujj tudd. parce que diggante bi yeneen xaj na fi. jàmmaarloo nañ fekk yeneen waa euh, euh, sama woykat yi ñoom Waly Seck ak léegi ñii. Mm. ba ñu déposé plainte. Mm. CNRA jox ñu dëgg. Mm. daal di confirmer ne am na pornographie verbale. am na apologie de la fornication et de l'inceste. dóor leen benn mise en demeure. ñii ngay wax. Euh, lenn ci askan bi loo lu doonoon seen réaction. Jamra da ngeen soxor fii du état islamique. fii du Iran ci ci laa jëm. Ah. ñu ne ñu ne waaw lan ngeen bëgg. ñu daal di ñu tontu lii ay studio al wax léegi daal di ne waaw lu tax jiitalu leen waxtaan. waaw ñu ne ah kii xëy na wax nañ dëgg. coow wàlli jëpp ñu jiital waxtaan. lu tax ngeen di wax ak moom. du nit ku baax waa hypocrisie sénégalaise boobu. mooy mm. indi confusion si bopp nit moo tax bi coow kooku may bañ a tudd amee. Mm. dama dañuy toog croiser ba bras jàmbur yëpp imaam Massamba Diop ba ca kaw ne duñ ci wax. Mm. waaye saan say naataangoo ay jigéen. Mm. ñu bari mat nañ de dizaines di ñu woo tous les jours ay jooy. Mm. daa di ne sa personne individuelle et privée ne nous intéresse pas mais li mu nekk jigéen comme ñun. taxaw ci diggu penc bi muy réseaux sociaux yi parce que Facebook penc la léegi. di fa futteeku di fa soli slip di dégradé. n'est-ce pas euh, l'image de la femme loolu moo ñu métti. loolu man foofu même foofu euh, euh, grand dégg naa la nga explication bi dégg naa nga joxe ko. yeneen interview mais man même foofu organisation féminine yooyu ma rafetlu ma seen démarche boobu parce que. Euh, dama jàpp ne euh, lu nee lu am y a une bon dose euh, enfin une une marge d'erreur tolérable boo xam ne mën nga ko nangul ñenn ñi mooy ñoom ñooñu jigéen ñooñu organisation féminine yooyu ki ñu wax ne moo def comme ni ma la wax bëgg mu tudd benn turu nit mais xale boobu seen doom la seen sët la seen rakk la elle est très jeune évidemment si cette jeunesse là n'excuse pas tout mais elle est quand jeune beneen ba euh, ay téléfilm defe naa jigéen moom moo nekk tamit scénariste ba mais bu ñu ñëwee ci kaaw euh, na xale boobu rek ndaw si ah. euh, ONG yi pour man loolu affaire ruube lañ def bala ñoo tëb jëpp tëb di woo yow mais dañoo war a loo xale bi d'abord seen doom la woo ko yedd ko ma laaj la léegi ah. kan ngay woo kuñ dul woo ah, moom ne nañ bàyyi bi gaañu na on a tout fait. mais moom xale bi ci boppam nañ ko woo en personne intitut personnel nañ ko woo. ñëw herself. soo jëlul xam nga waali dama woo mu jël yaayam mu jëloon. nee ma mu ngi ne la bu paree woo la. mais nga eh, SMS ñu ko sax ne ko ñu ñoo ko waxtaan ak yow euh, yi fi jàlle. waaw li tax waxtaan bi yomboon. Hmm. Euh, amoon na laaj ak tontu. Hmm. amoon nañu seq laaj ak tontu waaye hmm. fii bunt sax nga dul am. alors euh, li ma la bëgg a wax nag. mooy xale bu yow yow nga ko jotoo ñaata yoon. Mm, dama la jox dama lay jox benn exemple ci ku mu dend ku mu bokkal coow. Mm. jamono coow. Mm. mooy ki may bañ tudd te nekkoon ca euh, nekk scénariste. waaw maîtresse d'un homme marié. waaw Calista Si. ay mbokkam maa ngi jokkoo ak ñoom. danaa ci tudd kenn rek mooy soxna Mami Butu Kan. ñu ngi waxtaan pour que la plainte ne soit pas déposée ndax moo ma tooñ daf may tëkku te duma moroomam. te amul fenn fu mu teg. di def euh, benn messagerie WhatsApp. Mm. naan ma euh, Facebook. sa bés a ngi ñëw te yàggatul fu mu teg loolu. mais ñii du ñu bàyyi tooñ. mais mais mais kanam grand tëgg boobu mais tëgg boobu na grand nag tëgg boobu dëgg yàlla mais tëgg boobu yow lan la la mën a yàqal euh, loolu mu wax noonu est-ce que suba gars yi dañuy jóg parce que euh, c'est euh, c'est c'est c'est c'est c'est elle qui l'a dit suba mu war a def soulèvement populaire est-ce que moom toll na fa noonu est-ce que aussi yow tamit grand dëgg dëgg est-ce que foofu victimiser woo tamit ndax ça mën nga mën nga jàpp ne waxin la rek voilà je sais pas c'est son c'est pas son ton souhait mais est-ce que loolu war na waroon tax nga def ne euh, ma vie est danger grand foofu tamit foofu tamit da nga da nga xaw yokk sama karaw nag. en mars maa dem bëgguma ko tudd. ils sont deux d'ailleurs seeti deux hautes de la sécurité sénégalaise. maa foqati alcatel porte portable téléphone bu latif temps yooyu smartphone yi amul. bu latif dem ci kilifa yooyu ma ne latif dafa bari kers man du ko topp. il reçoit des menaces précises. ay tes jours sont comptés nangam nangam daal la bëgg ngeen toppatoo moom. luñ ma wax waaw xam nga des fois y a des farceurs y a des nangam maanaam ñu sewal ko. Ah. ñu teg ci une semaine. Hmm. je le répète Latif ñàkk bakkanam ci accident boo xam ne ça n'a pas toujours ça n'a toujours pas été éclairci. Hmm. te rapport d'autopsie bi kenn gisu ko. Hmm. rey mu dee dans un accident de la circulation. seul ci véhicule bu am quatre personnes ñoo xam ne seen bopp sax méttiwul. leeraluguñ ko. am na nag looy baat bu ngay dégg nga tàmm di ko wax nga ne comme Condobine dafa ñuul kukk. bu Condobine rey sa maam. boo gisee lu ñuul looy def. ma ngay daw ma daal di yuuxu. daal woo ndaw si nekk waaye yow d'abord j'ai j'ai dialogué voilà pour fekk si la ci li nga wax xam nga nit bu defee commentaire si Facebook ci suufu commentaire am am na deux boutons j'aime ak répondre boo defee répondre boo ko valider rek moom day jot notification kon gis na ko ma ne ko waa soxna si lépp ci defar rek mm. li na di sa bés a ngi ñëw te yàggatul man mosuma seq wax yooyu. Mm-hmm. est-ce que lu sérieux la wala est-ce que da ngay kaf faalewu ma. Mm-hmm. ma daal di dem ci sama page Facebook nag daal di def screenshot. Mm-hmm. pour bañ mu profiter effacé waxam. capture d'écran fab ko ne ko bàcc sama eh, page mais maa ngi jël Sénégal yi àtte mooy. woote wàllu. ndaw si li mu wax. upp na sama bopp bi. te ki jiite woon Jamra jotoon na lu mel nii. autorité euh, sécurité yaa ngi may dégg. alors yéen ñiy wax nag ci commentaire yi naan ma bul fi yee fitna yëfu na fekk la. kan moo yee fitna kii menacé wala ki ñu menacé. Mm, d'accord alors bref ba tax na. Mm. kooku au moins ay mbokkam ñu ngi woote. ñu ngi waxtaan. d'accord mais mais mais mais xam a foofu. te yow sax yaa ngi tombé woon dootoo wax waxi. mais bon euh, euh, au moins <laughs> je je mais mais foofu grand xam nga xam nga euh, sama beneen laaj mooy euh, quand wax naa la ñaari xale yooyu yëpp bu dee euh, l'autre petite laa avec ses tenues ak la scénariste ñoo ñëpp ci beneen wàll mat nga leen bàyyi nest pas seen kilifa nga ni nga nekkee kilifa ñu bari man li ma li may ragal mooy Euh, mu xaw a am ñu ñu ñu ñu xaw la wegadi ndax wegadi bi mooy gis naa ko ci ay commentaire gis naa ci yu bëri mooy bu fekkente ne yaa ngi tontonte ak ñoom bu ñu bindee nga tontu ak nangam loolu tamit est-ce que sa cër la est-ce que des fois waru dëgg bal bi bàyyi mu jàll après nga def li nga def mais mais bañ nekk di tontonte ak ñoom. Euh, souvent jarbaat Ramatoulaye Diallo alliance des major maa ngi jéggulu di jël sa cas comme exemple. Uh-huh. ndax su sang bu tedd Seydina Mohamed nee na jullit. bu amee jàlloore bu mu def ci wàllu mooy ci siraatal mustaqim di ko citer en exemple dafa am deux effets mm. day tax moom ci boppam bu doon def benn jéego mu góor góor mu def ko fukk mm-hmm. day tax keneen ku toogoon ci ker gi di seetaan dina naa ah, kii li mu def day bëgg naa am jàlloore bu mu def kon mm. xaaral ma jaar si kon nag ma baal ma jëlaat sa cas comme exemple mm. kenn naa ngi ni koo xam ne bi mu xamee ne tooñ na ndax ñi ñii nga tudd noonu ñoo tooñ dafa dem ci avocat am maître Ousmane Seye ki mantan ne ma des major daf la bëgg a gis pour jéggalu. ma ne ko fii amul protocole. ne yow eh, dafa ne ko ne jéggalu bi nga sa bëgg kon yow. Eh, dëgg bu ñoom ñu ñëw ñëw ñu jéggalu ba xam li ma ko tontu. Hmm. mu ne jamet egsi. ma ne ko yow looy di jéggalu ci ñun. yow tooñoo ma. tooñoo jamra umma islamique bi tooñ. ndax li nga def moom la tubaab di tuddee outrage public aux bonnes mœurs. Hmm. moom la code pénal article 324 tuddee hmm. attentat à la pudeur. comme que da nga bëgg xam nga il est matériellement impossible 16 millions d'habitants kër gu ne nga fëgg salaamaaleykum maa ngi jégul kon je te suggère nga def comme que yaa ma laaj conseil nga def une petite déclaration dinaa la dimbali ci mes relation avec le médias ñu tasaare ko ñi meroon yépp seen xel dal ma ne ko waaye nag jéggulu sartu jéggulu ñett la mm. benn bi mooy nga reconnaître ne yaa tooñ ñaareel ba nga biral sa kàddu njëggal maanaam nga formuler sa acte de repentir. Mm-hmm. ñetteel ba nga jël engagement ne ne dootoo ci dellu. d'accord mu daal ko def. waaw mais mais mais. Euh, xam nga neex naa waxal. waaw mais maa ngi jéggalu waa des major waaye yal na la yàlla sàmm. woo nga ma depuis Paris foox ma ne yaa ñu bëgg a dellu si waat. reprendre tes activités d'artiste. wax nga ma wax yoo xam ne wax yu dal xel la. Mm. ba am naa yàqin bu wér ni la taxoon nga am jafe-jafe yooyu incha allah doo ko am yàlla na yàlla sàmm te gën la saxal ci siratu mustaqim ndax sa bàyyi ilimaan la bu ñëpp a xam. Mm. kon nag ci tànk yu baax rek nga mën a jaar. d' accord léegi léegi léegi man grand beneen bi mooy quand même euh, wax nga léegi ne euh, euh, pour le cas de la scénariste da nga dem dugg ci kii woom kii nu mu tudd man xam nga ne affaire yi. page Facebook <laughs> xam nga waaw page Facebook. page Facebook de. waaw du page am de. loolu la yaa yu ne xam nga sa naataango maa ngi koy tudd bi nekk Sud FM Oumy man bañ naa ko du ma jaar mukk turam dama ko daan may ñees de valeur moom itam mu naan moo tonton de valeur dañ yabante dafa yéeg ne comme yow tu l'as lu certainement le quotidien gouvernemental Le Soleil l'excellent journaliste directeur de la rédaction Sidi Diop daf ma ñaanoon interview ma recevoir ko kër ga mu def interview mu def benn profil d'une page mm. mu daal di génn dans leur édition du mercredi 22 mm. janvier bi passé Oumy Régina Sambou iskane ko ne ko bàcc sur sa page Facebook y a rien de méchant hmm. euh, ses followers et ses amis di commenter daane ah ñun de xamuñu woon ne kii jaar na fii jaar na fee hmm. après tam y a des commentaires négatifs c'est normal on a démocratie hmm. naan waay paa bi bu mu ñu tànqal waay moomul nit ñi ça s'arrêtait à ça waaye ndaw si scénariste bi daa di particulariser par une menace boo xam ne répété naa la